waaw li ko waral mooy ku am gan da koy waajal gan gu toll ni sëriñ Pape Malick si yor kaddu njabootu si Sidi Hadji Malick waaye nar fi représenté islam bi yëpp ci xadara bi nga xam ne moom la ñu waajal le 6 mars incha allah muy ajumak ak waaye ko am gan gu toll ni sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ko war a waajal te an nazafatu min al iman set ci diine la bokk fa tabarakallahu ñun nag ab naaw xadra départemental bu Mbour ñuy def suñu participation ci action yi nga xam ni tabarakallahu njiitu réew mi lancé na ko ngir ñu setal dëkk bi waaye nag damay wax ni daf ñu ci fekk ndax diine ci set la bokk yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jàngal euh, waxtu wu nekk bala ñuy julli dañuy jàpp fa tabarakallahu ginnaaw it leneen bu ñu ko àndee ak ci suñuy njaboot dañuy sangu kon diine ak set ñoo ànd moo waral tey ñu ñëw fii ci stade Caroline Faye ngir def suñu participation ci set setal bi waaye def ko tamit ci ndigalu tabaarakallahu suñu ay kilifa xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Alhaaji Mansour ak ndigalu njabootam yëpp te ka mu jiital di Serigne Pape Malick Sy ak ay rakam fa tabaarakallahu moo waral ab naaw xadara Tidiane yi ñëw daje fii ci stade Caroline fay ngir waajal xadaratu juma le 6 waaye nag ku am ay gan da nga leen di waajal lan nga leen di waajal mooy set te set dafa bokk ci diine loolu moo waral ñu daje fi tey li sama turandoo wax ni fakk annahum waqta nachaati li ahlihim wa li qawmihim bi wazifati sultaani ndaw ño xamni mom la tarixa bi soxla moy ndaw ño xamni ni dañuy am d'abord ñu tuddé engagement citoyen moy ndaw yi tarixa Cheikh Ahmed Tijani na ñi jaare ci buntu mam keur Cheikh Seydi El Hadji malik suñu xalifa général Cheikh Seydi bakkar Mansour yag ci prêcher yag ci joxe orientation tabaarakallahu rakkam jifi jëm si nga xam ne bu ñëwee toog njaboot seen Hadji Mal gépp toog nañ muy Serigne Pape Malick Sy le siis ñun ñëpp bokk nañ jot ndigal ci kilifa yooyu que ni xadra bi ñu def bi ñu koy programmé boobu dara xewul ci réew mi alhamdulilah rabbil alamin waaye bi nga xamee ni coronavirus bi dugg na suñu kilifa dañu ñu instruire à ce que ñu ñaan yi ñu yokk ko. d'abord li sama do xone Serigne Cheikh Tidiane ci Al Maktoum nañuy bolé ñaan ak faju faju gi mom ak la ca waru dañ koy boole pouvoir public dañ koy baye pouvoir public gi waye walu ñaan gi nag tabarakallah suñu kilifa ku leen xam xam Tiwaawan insha allah taala xam njabotu tarixa Cheikh na Tidiane hadra bi di ñëw di ginaaw suba insha allah aljuma le 6 mars ñaan yi dañ ko gëna yok li dalé ci kamil yi ñuy wara jàng yok askar yi xadara jumaa nag moom fa la ñaan wàññee ko ndax jotaay la ak sallallahu alayhi wa sallam ci biir loolu nag ñuy les autorités publiques, publique yi nga ñoo ñu Nous ko sans exception rawatina nak ministre bi nga xam urbanisme ak euh, logement dénk ko hygiène publique muy Abdoul Karim Fofana suñu frère di ko xam def ñoo jàppale bu baax ci ay matériel taxawuñu comme ni mu koy defalee yeneen mbootaay yi nga xam ñoo ne ci réew mi ci wàllu sport ñiy def politique ak ñiy def leneen ak ñi association yi ñun nag tabaarakallaahu lii yàgg nañ koo taxawe yàgg nañ fay def ay euh, consultation médicale gratuite nit ñi teg seen bët ci mbuur Mbour yàgg nañ fay def euh, ay Euh, ndogu yo xamni ni nii ko ci yenn mouvement yi diko def ci Seydil Hadji Malik ay action sociale tay nak ñu ñew ci set ak setal ndax l'islam diinay set la di gërëm bu baax direction bi nga xamni aussi moy direction hygiène publique ñom ñepp daal jot nañu seen ay ndimbal ak seen ay taxaway pour que bis bi nga xamni le six ak jàmm daal li ñu bëgg moy euh, li doon xaar ci nit incha taala dina yok ndax ñepp xadara bi la ñuy pare moom la waat buñ dajé fi ñu soppi ko ay ñaan ko ci ca la ñu yéene woon pour que li nga xam moy fièvre coronavirus bu état défé li mu war def population yi aussi def ñu wara def sëriñ bi néna rôle euh këru diine yi ak askan wi moy di leen sensibiliser di leen fatali té di leen saxaw ci ay ñaan fu mbolo di dajee macha allah ci jamono bii ak jamono bu mën a doon set dafa am solo loolu moom lañ njëkka waajal incha allah képp ku fi ñëw di nga fekk ñu jël ay matuwaay yu war a war ci wàllu set ak setal ci wàllu bañ a parce que la doron wala diraara ci ay raxasu ak ay eh, euh, yoo xam ne ay jumtukaay la dinañ ko jël ci côté yëpp pour que ku fi ñëw incha allah euh, kenn bañ fee am benn problème ci wàllu santé ci wàllu wér-gu-yaram rawatina jamono bi nga xam ni coronavirus wax nañ ni mi ngi lëmbate àdduna bi waaye incha allah ñaan amul lu mënul ndax baatin euh, du moromu bëtu neen te kun moo mën kënu. qaadiran yaa muridan yaa xaaiman bi nafsihi هذا مرض جديد فاكفنا من بأسه يا خادرا يا مريدا يا خائما بنفسه هذا مرض جديد فاكفنا من بأسه ليقطع طرفا